docteur Mamadou Demba Ndour euh, yëkki ay euh, jàmbat jëme ci président de la république ba mu jural ko ay euh, daan ay sanctions yoo xam ni tegu na ci kawam loola nag ñu ci waxtaan tey dalal ci docteur Oumar Boun Khatab Thiam anesthésiste réanimateur nekk itam njiital alliance nationale pour la sécurité des patients docteur ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci Demb ak Tay di fay auditeurs yëpp di déglu waaw euh, di la Ah. jërëjëf docteur euh, doo gan ci réew mi euh, euh, tey nag ñu war a ñëw ci jafe-jafe yi nga xam ni moo mës a lëmbee wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal lu ko jiitu nag lanay sa gis-gis yow en tant que président de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients ci daan yi nga xam ne teg nañ ko ci kaw gynécologue bi yëkkati ay jàmbat ñu jëm ba tey ci wàllu wér-gu-yaram niki noonu kaaraange ñiy faju Fatou Thiam moom maa ngi lay nuyu di la ziar mais di wax ne rek euh, ni ma jàngatee mbir mi moom d' abord man je ma présente man maay président de l' alliance pour pour la sécurité des patients mais di la fàttali ne aussi cadre la ci APR hmm. et notamment ci euh, fi ñuy wax vision kon nag euh, su ma wax su ma féetee su soutenir mooy euh, membre APR la responsable APR la léegi ni ma jàngate mbir mi moom ba ma analyser ay waxam ci Facebook dama yëg ne moom euh, euh, syndicaliste la gynécologue la ensuite je pense que wax na ci aussi ne opposant la c'est pas c'est mm. mais li ma koy remercier di ko féliciter mooy bu ma accepté dem servir ci zone boo xam ne c'est pas évident hmm. zone bu métti parce que bari gynécologue yi dem ay Tambacounda ci Matam léegi bu defee sacrifice foofu pendant juróomi benn at mu toog foofu di wax techniquement lu mu gis ci euh, région par rapport ak par rapport a ak euh, euh, wérgu mbirum wérgu yaram man je pense que kooku dañ ko war a déglu parce que li ñu wax la dëgg la wax nee na yéen euh, équité territoriale amul parce que dañoo concentré plutôt ci Matam hmm. benn hôpital te la su ma jëppee donc moom moo nekk ci réalité moom moom mun a xam liy sooxe ak contribution la président ba muy def tournée économique en tant que président de l'alliance pour la sécurité des patients ñu ngi jógee ci covid covid ñëpp xam nañu fuñ ci toll gagné guñ ko naam am nay cas yoo xam ne ba léegi ba léegi ñu feebar boobu waaye lan moo waral ne président buy déplacé wu mu ànd mbooloo moomu sans respecter barrières yi ñu waxoon le peuple avait gagné ci affaire mu barrières yi jël nañ ko teggi fële ah donc loolu mooy première chose la deuxième chose président buy def tournée économique day dem soxlawul mu ànd ak ñoo xam ne dañuy kaat bi dem foofu dafa ñëw pour liggéey pour xool par rapport à programme par rapport à sa vision li mu wax mu toog ak les cadres de la région résident ñi nekk foofu di liggéey foofu di biir Matam notamment parce que comment il s'appelle encore docteur Ndour dafa wax mais su mu mënoon jàkkaarloog président dana ko wax xam ne euh, lu yenu maanaam te président dana ko lu positif la man je crois que dafa la peine di tëb tëb di acharné sur hmm. un quelqu'un qui a patriotique même su fekkee il n'a rien dit de méchant li mu wax tout simplement mooy xalaatam te président da ko jëlaat kon. Mhm. maa ngi rafetlu boobu ba président damay maanaam mu gisee ay nit yu euh, takk ay brassard rouge ñu leen ñu leen wax ak ñoom loolu maa ngi koy rafetlu parce que président xam na ne dañ koy fal bu cent pour cent. Mhm. dana am ñu ko bëgg dana am ñu ko contre. Mhm. te boo moytuwulee ñi ko contre ci booram lañu gën a nekk que que ci opposition bi que président di déglu ñi ko faral di déglu aussi ñi ko faralul hmm. ñoo xam ne mun nañu apporter dara c'est pas parce que dañu opposer rek que nekk nañu loo xam ne c'est des ennemis c'est des gens yi nga xam ne hmm. je ne rentre pas dans des considérations personnelles mais tout simplement bu demee ci partem sax dana am ñoo xam ne peut-être que ànd ñoo moom hmm. euh, ci ni muy doxale parti mais waxuñu ko xam loolu la nous sommes dans un monde boo xam ne il faut que président ji toog di dégg buñ ko di wax lu ko neex rek moom dafa ne damay liggéeyal askan bi boo ko bëggee dimbale pour mu liggéey askan bi da nga koy wax réalité yi hmm. docteur Ndour noonu la ko jàngate dafa wax loo xam ne yow tabax nga hôpital am nañ pour affecter nit foofu ay problème la wala boo fa affecté nit ñi ni na ñëw jël service tensionnaire Maintenant, Dr Ndour, il fait partie des rares médecins qui ont accepté ces jours là-bas pendant six ans et a vécu bu vivre problème yi donc mu jël responsabilité bu ne président lii ka suñ ko defee du du baax du baax war lii baax na mm-hmm. waaye war nañ ci yokk lii war nañ ci yokk lii a mm-hmm. après dañuy am problème boobu parce que ñun dañuy am dañu bëgg a digal président wax ko mais dafa am ñi nga xam ne dañuy toog sa xalaat duñ ko àggale mook président mm-hmm. waaw dañ ko wax ne oui oui oui ça va président oui ça va wax waxuñu ko dëgg il est mal entouré. loolu suñu njiitu réew yëpp dañuy am problème yooyu ah est-ce que. mais malheureusement Macky Sall warul am problème yooyu Macky Sall war na day recevoir dégg nga de ñu koy wax militant lambda bu mu toog rek mu ne ñu ngi laa kii ñu ko wër waxuñu ko dëgg te mën nañ demander audience pour vice président. Hmm. mën na toog mu waxtaan ak moom. d'accord yow même opposant même ah ah. citoyen simple. Mhm. c'est lui Macky Sall moom il est loolu mooy problème bi. d'accord kon yow daal docteur Ndour li mu def gisuloo ci benn jafe-jafe. gisuma euh, ci benn jafe-jafe directeur boobu directeur boobu la ñu war a jël sànni fële. docteur Ndour man patriote affaire patriotisme la wane même s'il est opposant. Hmm. c'est pas c'est un opposant qu'on parce que euh, boo xam ne am na njëriñ mun na digal joxe xalaatam. Hmm. il n'est pas forcément avec nous. d'accord mais il a donné son point de vue. Hmm. donc il faut tenir compte loolu. d'accord mooy réalité sunu problème bi mooy problème entourage njiitu réew mi dañ koy wax ñun sax on en souffre. ci parti bi ñu nekk. d'accord nga bokk ci APR nekk itam njiital alliance nationale pour la sécurité des patients ni ñu ko waxee sànq. mu dellu waat nag ci li nga xam ne moom moo amoon atum 2000 muy waxtaan yu yaatu yoo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram la ñu ko jëmale woon système sanitaire bu Sénégal li ñu lay laaj yépp dangay wax jafe-jafe nga xam ne moom lay jànkonteel ak li ñu ci waroon def te defuñu ko ci ana ndaje moomu lan moo ko sooke woon ak euh, ca cëppaandaw la lan la nu ci mën a jàpp. ndaje moomu dafa deux mille dafa tase ak Abdoulaye Wade ñëw mu ngi doog euh, tàmbali donc euh, ñu waroon toog saytu secteur bu mel di secteur bu santé xool jafe-jafe yi fa am yëpp pour mun a def lu baax mun a suqali secteur boobu malheureusement. Euh, am na jéego yuñ ci def waaw mais ba léegi dañuy jékki-jékki yooyu ñu waxoon duñ ko topp daal di jël sànni ci tiroir yi te donc santé moo mel ni waxtaan boo demee ci tiroir yi waxtaan yi ñuy waxtaan yi ci système de santé bi daanaka at bu jot ñu waxtaan ci hmm. malheureusement conclusion yi ñu jël dañ ko jël dugal ci tiroir yi tëj foofu am na yenn yu ñuy xasee ne sax les sénégalais dañuy réfléchir ñoom ñoo gën a ay ci réflexion mais en matière d' application ñun dañuy ñëw jël li ñu ñoom li ñuy liggéey ñu appliqué donc voilà. Mm-hmm. xam nga balaa corona bi ñëw aji euh, comment il s' appelle waxtaan nañ sur les urgences nationales. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. malheureusement dañ ko jël dëxañ ci tiroir yi te te corona aspect urgence la woon. urgence sanitaire. d'accord ñu des mille ba tey ci conclusion yi yan nga ci jàpp ay ponk yoo xam ne jàppoon nañu ne lii moom faaw rek ñu euh, yokk ko euh, ci système sanitaire bu Sénégal. xam nga mënul weesu infrastructure équipement ressources humaines ak management. Hmm. gouvernance dégg nga ak euh, voilà équipement ak loolu mooy fondement bi. ay kii infrastructure ne woon nañ dañ ci def jéego ba fi Ablaye Wade ñëwee tabax la ay kii centre de santé ay ji yu bees Macky Sall aussi ba mu ñëwee am na yu mu def tabax na mais ba léegi euh, ressources humaines yaay des efforts ci recrutement bi parce que avec Ablaye Wade lañuy ñuy commencé des recrutements bi Abdou Diouf moo waxoon ne euh, toppoon euh, politique gu Banque mondiale ak FMI dal ne la santé n'est pas un secteur productif kon nag bu ñu recruter euh, la santé l'éducation mu am génération yu sacrifié gab boobu mu nekk ju ba léegi toog nañ ay at recruter wu voilà donc boo Ablaye nu ñëwee si la boosté si la nit ñi doog a miin mm-hmm. xam ne santé secteur bu essentiel la ci développement ak éducation moo tax ñu boosté ko di recruter. ay personnels def mm-hmm. voilà ba léegi doyul. ba léegi doyul il y a des efforts mais ba léegi doyul parce que gab bu ko c'est pas en dix ans. Hmm. c'est pas en vingt d'accord kon daal ci tënk mën nañu jàpp ne assise u mille yooyu 4 juillet 2000 euh, bi Abdoulaye Wade ñëwee ci nguur gi assise nationale yi ñu defoon sur la santé la ñu ca tënkoon tey sore nañu lool ak euh, li am tey maanaam doxaluñ ko daal ci ci ni mu waree. waaw doxaluñu ko ci ni mu waree doxal nañ ko en pàcc ci euh, mais euh, respecté wuñ ko comme niñ ko bind woon ci conclusion yi. Mhm. léegi nag saa yi nekk euh, moom les mêmes difficultés se posent léegi y des efforts qui ont été faits affaire santé moom boo ilaa yow mi di duñ ko réglé kooku c'est tous les pays pays yëpp la pays européens pays occidentaux ñëpp euh, c'est au niveau mondial mais nag il faut que ñuy tànnante ñuy progresser mm. li ñu defoon ñu gën ko sunu sunu ëllëg gën sunu tey mm. ci mbirum santé. Mhm. sànq euh, wax nga euh, en partie ne peut-être ab Abdou Diouf moom Banque mondiale la doon déglu ak euh, ñoom FMI ñuy wax ni que secteur santé du secteur bu productif mais tey ci ab Ablaye Wade ba ci Macky Sall lan nga gis ne peut-être moom moo tax. santé bi yeggul fi mu war a yegg ndax xam nañu jafe-jafe yi jàngat nañ ko ni ñu ko waxee def nañ fi sax ay assises nationales mais lan moo tax ba léegi jëmul kanam est-ce que volonté politique moo ci nekkul wala Sénégal moo amul doole wu xëy na am benn système de santé bu performant boo xam ne dina àttan askan wi ndax tey feebar faju moom jafe-jafe bu rëy la ci askan wi. waaw système de santé sunu surtout sunu en pays des pays en voie de développement euh, euh, par rapport au budget qu'on alloue à la santé. Mm-hmm. naam euh, ñu ngi koy améliorer mais dese na dese na dese na lu bëree bëri bëri donc euh, finalement euh, comment il s'appelle encore Ablaye c'est vrai que avec lui il y a eu le déclic en partie Macky Sall était dans le gouvernement d'Ablaye Wade ils ont fait des déclics ils ont construit vraiment des structures sanitaires ils ont ils ont fait des efforts ça c'est sûr parce que Macky Sall aussi mu ñëwee gis nga keroog barki démb ñaay hôpital lu Kaffrine bi hôpital lu Kédougou bi ak yeneen yeneen yeneen hôpitaux yoo xam ne promettre na ko tel que hôpital euh, bu Touba bu muy waaj a loolu yëpp ay effort la yoo xam ne vraiment c'est salutaire mais il faut que ñu wax ko ne tabax hôpital rek day il faut que moo dafa am lu muy àndal équipement yi ñu ngi fii macha allah équipement mu ay la keroog ko gisee ba ko wonee télévision mais dafa ànd ak ak ressources humaines de qualité hmm. waaw il faut que mu am ay personnel bu doy boo xam ne xarañ nañu ñu affecté leen foofu ñu mun a toog comme docteur Ndour lu mu nangoo toog Matam. Hmm. ñu kii mais fii gis ñuy recruter euh, médecin yóbbu ko Fongolimbi wala Kédougou du muy njëkk a def mooy ñu ñaan affectation. Hmm. ñu teel a pression dugal boo loxo dugal tànk du jël service sax boo demee dafay dem jël service ñoo toog di lekk xaalis hmm. waaw. te loolu problème bu yàgg la ci système sanitaire bu Sénégal mais problème bu yàgg la ci système problème bu yàgg la ci système bi. loo tax mu ñu xool ñu war a xool naka spécialité yu mel ni gynécologue yu mel ni anesthésiste yu mel ni pédiatre yu mel ni yeneen yi naka lañ leen di motiver pour ñu mun a def ki euh, al ci kii bi comment il s'appelle encore ñu mun a def toogandi ci àll bi hmm. rek kooku il faut ñu toog waxtaane ko sur la mobilité sur la gestion de ressources humaines. loolu itam kaaraange patient yi ngay sàmm def cee ajo ndax kuy wasin war a dem def ay kilomètres ci ay charrette wala ay euh, yoon yoo xam ne yu metti la euh, loola it yaakaar naa ne euh, war ngeen cee taxaw yéen waa alliance ah, nationale. bien sûr bien sûr l'accessibilité aux soins tant du point de vue géographique à du point de vue financier financièrement. moo tax ñu de euh, Macky Sall ba mu ñëwee tabaxa euh, taxawal CNI mais CNI yéene la mais il faut que seyti ko xool la ca dox ak la ca doxul la mu mun a gérer ak la mu mënul gérer ah loolu c'est très important ah yéene def fi am programme bi am mu teg ko fi mais war nañu saytu programme bi xool la ca doxul la ca dox parce que CNI tax na ne hôpitaux yu bëri léegi ñu ngi sooxe ñu ngi ànd ak bor fayu leen mhm. te mënatuñu def prestation de service looloo ngi si li si des euh, PUD PUDC bi réglé na problème yu bëri parce que def na des euh, désenclavé na ay zones yoo xam ne euh, bu njëkk ba dafa nekkoon des zones enclavées ah par exemple des pistes de production yoo xam ne nag léegi am na latérite oto mun na jóge foofu dem ba ci centre de santé bu jege loolu yokk ci ay centre de santé yu yu muy tabax ci yu bëri ci ay euh, village wala euh, ay ay communes yu bees hmm. donc loolu yëpp ay effort la mais lépp loo gis il faut ñu toog évaluer ne lii dox na lii des na toujours lii la ñu war a yokk fii la war a kii donc man je pour la le recrutement massif encore bien bien que ay effort am nañu. Hmm. Ah, de spécialistes de personnes qualifiées pour aller gérer justement ces structures de soins. Hmm. yi nga xam ni yu bees la ubbi nañ ko dans les différentes régions du Sénégal. Mmh. chaque jour euh, problème ressources humaines dafay ñëwaat. bari na lool ñuy génnee ci faculté de médecine yi am formation bi war mais. syndicalistes yi du ñu jóg ci di jàmbat ni que euh, manqué nañu ay nit ak euh, yu ci aju paradox boobu yow euh, lan moo koy expliquer paradoxe bi mooy li yaakaar ne doy wax naa la par paradoxe amul il fallait le prévoir gap bu ñuy traîner la tar bu ñuy traîner la depuis temps Abdou Diouf Abdou Diouf toog na ci diir yàgg plus de dix ans vingt ans recruté wu fonction publique donc loolu gàppo mooy traîne mooy topp nee naa kenn du ko en dix ans mais malgré les efforts qu'on a fait moo tax temps yi il y a des décisions sanitaires yoo xam ne Macky Sall nee na les médecins à soixante cinq ans ah plus un recrutement massif loolu mooy tax au moins ñu mën a reconstituer euh, le pool de de de de de personnel qualifié waaw. Mm-hmm. kooku mën nañ ko étendre ci sage-femme wala a infirmier yoo xam ne am nañ kattan hmm. waaw. d'accord nga wax ñu tuuti peut-être ci historique gu alliance nationale pour la sécurité des patients ak taxawaay bi ngeen di am ci jafe-jafe yi nga xam ni askan wi dañu koy jànkoonteel ci wàllu fajo euh, loolu pli euh, alliance nationale pour la sécurité des patients taxaw na depuis deux mille douze la ñu am suñu récépissé kooku euh, comment il s'appelle encore l'OMS ak Alliance mondiale pour la sécurité des patients ñoo lëkkaloo pour demander à ce que les États membres de l'OMS puissent promouvoir la sécurité dans les soins ah sécurité dans les infrastructures ak sécurité ci affaire équipement waxoon naa ci ba affaire lumière bi éclaté sécurité dans euh, la qualité des ressources humaines et sécurité dans la manière d'offrir les soins voilà Donc, euh, Sénégal étant signataire, de, de, de, de étant membre l'OMS, nous signons ratifié une convention. alors moi, n'est président de l'OMS pour la sécurité nationale euh, du Sénégal. Donc, euh, nous déposons sur le récépissé du Sénégal. À chaque fois, avec nos moyens, s'il y a des problèmes euh, concernant, euh, parce que c'est une mission, moi, prévention comme ni ma la ko waxee nekkuñu fi pour atte xeex dañuy def pour que góor ñaax nit ñi pour ñu góorgóorlu pour que ay accident ay risques yoo xam ne euh, souhaité wuñ ko woon moo am ci biir euh, euh, bérébu fajukaay bi moo tax léegi dañuy ñun affaire waxtaan la ñuy gën a kii ñaax nit ñi ne leen ah bu ngeen defoon lii bu ngeen defoon lii en harmonie en accord que lii lañ wax lii lañ wax c'est appliquer normes yi loolu la l'OMS digle loolu la kii yi digle et cetera pour que ay accident bañ a am parce que dañoo seetlu ne tribunal boo fay dem da ngay yëg ak wàcc affaire tribunal taxu ñu jóg hmm? affaire prévention moo ñu tax jóg ba ngeen juddoo ba tey en tant que association euh, yan jéego ngeen def ci biir askan bi loo xam ni mën nañu ci teg loxo tey Euh, participer nañ ci yu bëri ci affaire euh, euh, célébration de la journée mondiale sur l'hygiène de l'air chaque cinq mai dañ ko daan célébrer et que léegi dem na ci xeet yi man mi ba ma nekkee comment il s'appelle programme national de lutte contre les infections nosocomiales encouragé woon na encouragé woon nañu que chaque structure mu am bu mel ni à euh, alliance locale pour la sécurité des patients yoo xam ne ah dañ koy dañu nekk si pour jéem a euh, toppatoo affaire sécurité des soins waxtaan ceeg direction bi waxtaan ceeg liggéeykat yi pour mun a wecc pour ñu mun a euh, appliquer les bonnes pratiques. en matière de soins. Une ville avec nos maigres moyens GTR yi ñu sept waroon nekkal en partenariat pour mu appuyer ñu pour ñu mun parce que loolu appui la appui la ah voilà ñu ngi ci à chaque fois que soxla yi que ñu que ñu mën ko def danañ wax joxe suñu xalaat participer ci voilà Euh, les réunions ministérielles sax ñu ci wooye ñu mën nañ ci ñëw pour joxe suñu xalaat. Mhm. voilà tey docteur booy càmbar système sanitaire bu Sénégal ba ñu ko tubaab yi bàyyeewee ba léegi lan nga gis ni moo ci jafe-jafe boo xam ni daal tey moo tax xëy na yëf yi di tagga tembe xam nga nag dana jafe dana jafe dana jafe ci euh, parce que tubaab yi ba ci nekkee euh, amuñu woon. Euh, ay bërëbu fajukaay yu bari ay dispensaire la ñu amoon. Hmm. feebar yi daan faj mooy feebar yi wàllaate moom moo nekkoon suñu priorité ay maladies infectieuses ah donc gën ngaa bëri donc loolu lañ doon def hôpitaux yu bëri wuñu si woon tubaab yi ñoo ko doon gérer mais seulement euh, nit yi daanañ faju te duñu fay évolution dem ba nga xam ne état bi Sénégal indépendance am na tubaab bi génne ci seen loxo ñu daal di jël au euh, temps de Senghor ñoo jël euh, jël réew mi euh, toujours hôpitaux yi bougé wu ñu woon du point de y a des des programmes ay yoo amoon solo ñu defoon mais que soins yi ba léegi nit ñi daaw ñu fay ku daan feebar da nga daan fajis daal ñëw ci dispensaire bi wala tamit hôpitaux yi gaa bëri boo demee hôpital ñu faj la te fekk daawoo fay jox la garab léegi affaire yi dem na ba nga xam ne nee nañu réforme hospitalière dugg na Abdou Diouf moo koy initié en quatre vingt dix huit assemblée voté ko en quatre vingt dix huit Abdoulaye Wade ñëw en deux mille lañ commencé appliquer la réforme hospitalière mm-hmm. loolu tam jéego pour que soins yi gën a qualité waa mbaa sillons yi gën a ñoŋ léegi dañuy transformer hôpitaux yi en entreprise entreprise boo xam ne du def bénéfice. d'accord lépp lu mu am daf koy delloo ci ci soins yi ci ci biir entreprise bi. Hmm. soit ci personnel bi. soit ci jumtuwaay yi ñuy fajoo am nañu autonomie de gestion mun nañu am recruter euh, personnel aussi aussi qui, comment il s'appelle encore, les, les localités, et les collectivités locales, ci bu ñuy implanté wu pour que ñooñu aussi mën a financé bokk ci financement soin loolu nouveauté la am e esprit bu baax la parce que li ñuy soxal c'est tout est concentré maintenant ci euh, satisfaction malade bi bu njëkk bi da nga ràññu am li nga joxe kii ba mais léegi malade bi dafa bokk ci paj ci paj mm. paj mi koy defal. est-ce que loolu itam gënul diisal mbir yi ci malade yi ndax paj mi dafa cher moom itam saa su ne ñu dégg ko. waaw paj mi dafa cher mais dañoo ne dañoo dem boo xam ne ah malade bi mënul supporter lépp état bi aussi mënul supporter lépp nañu waxante dëgg ak suñu maigre moyen mm. budget lañu mën a yokk ah, malade bi ci boppam kii moo tax ñuy promouvoir ay politique genre assurance ay mutuelle d' assurance ak CMU bu ko lal couverture maladie universelle loolu moo ko war a jot ñi nga xam ne néew lañ doole état bi jël leen en charge yi nga xam ne ñi nga am zéro à six ans ci politique bi zéro à cinq ans et état bi jël leen gratuité de soins yooyu yëpp ay jéego yu am maanaa la donc euh, tout simplement il faut euh, benn régulation système de régulation boo te tegee mbir muy dox da koy da koy da nga koy saytu secteur santé dafa loo xam ne war nañ ko saytu nu baax chaque année ñu defal président bi rapport boo xam ne bu mujj ay ay. te yow li nga nekk ci li nga nekk ci fonction publique ba ni nga ci génnee gisoo évaluation boo xam ne def nañ ko mu ñeel secteur wala système sanitaire bu Sénégal saa su ne nga jàmbat loolu itam. waaw mais kooku parce que dañuy dem ci assises yi ñëpp wax na lii lii lii lii nañ def lii lii lii. assises deux mille ya waaw assises deux mille récemment am na concertation sur les urgences. li ñu foogoon ñëpp dañ ko defañ ci tiroir kenn kii wu ci ba lii ñëw donc finalement dafa di loo xam ne chaque année war nañ toog. ah di ko càmbar di wax lii sooxe ne lii war na dal. Mm-hmm. gis nga syndicat yi tout le temps ñu ngi génn di gërëm. hôpitaux yi amatuñu moyen pour pour kii. donc euh, gis nga lu ma il faut que nit ñi wax dëgg directeur boobu nekk foofu président bu demee Matam nañ ko bàyyi mu waxtaan ak les liggéeykatu Matam yi résider Matam pour ñu nekk ci hôpitaux yi ñu nekk ci agriculture bi ñu nekk ci enseignement ñu nekk ñëpp ñëpp mu mel ni rencontre la bu ñu am pour wax président ne lii moo xew su sunu gox lii moo ñu manqué lii moo ñu manqué président indi ci saafara il a naam mais il est mal entouré man je le dis hein haut et léegi da ngay wax bu waa ji bu fekkoon wóor na ko ne bu bindee rapport am bu bindee lu noonu rapport am ko ci ay loxo danaa ko ci président kon du ñu am benn problème mais ni mu waxee dafa jooy ne xam naa ne da nga ñëw ba dem du ma gis du am chance suma ma bindee doo ko euh, doo ko jot hmm. wala duñ la ko lire lire la donc gars yi ñu nekk ci di nax président ñuy dem ñu naan ngoroog soow ay càkkiri xaw ma li ma wax. gloria <laughs> soow ay gloria mburu bu ànd ak soow mburu bi dana manqué soow bi te mburu bi dana secc na moytu nag ah euh, nekk soow bi na nekk mburu mi. parce que mburu bu ànd ak <laughs> la war a sumi euh, ñëw ci sa kaw alors docteur Oumar Boun Khatab Thiam la ñuy dalal ba tey ci Demb ak Tay waxtaanee wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal ak jafe-jafe yi ci nekk moom moo jiite alliance nationale pour la sécurité des patients day politique itam ndax mi ngi bokk ci APR. alors docteur tey euh, gannaaw yow yàgg nga ci système sanitaire bi liggéey ci ba retraité euh, tey lan nga gis comme solution saafara boo xam ni xëy na bu ñu ko joxee système sanitaire bi euh, wopp gi mu nekkee dana ci jóg ba askan wi mën a faju wér. a ah, xam nga rek li ma la wax infrastructure li ma la waxoon dëmb rek. waaw équipement infrastructure équipement personnel bu doy ah gouvernance euh, bu jaar yoon. Hmm. waaw gouvernance bu jaar yoon boo xam ne ku nekk dañ lay seeti teg la fi nga mérité dégg nga ku am mérite ñu teg la ci place la mais duñ la jox poste boo xam ne parce que ama neex la santé dafa sensible voilà. ñu wax ci mbas mi coronavirus mënuñu ko bañ a tudd ndax euh, gis nañu troisième vague mi ngi yëglu ba tax waa CNGE daal di def daje euh, waxtaanee xëy na euh, li nga xam ni war nañu ko am ni taxawaay noo gisee première vague bi deuxième bi ba ci troisième bi fan la ñu sookee ba tax mbir yi demee ni mu demee. première vague bi def ñu bett. Hmm. ba mu ngi bettee gars yi jaxasoo gis nga waroon nañ seen biir sax parce que professeur Seydi dafa jóg dem ba Tambacounda dem ba Ziguinchor te ñu ngi bokkoon ci équipe bi euh, ne lii amu fi li amu fi lii amu loolu mooy ca njëlbéen dafa ñu analyse situationnelle pour mun a proposer plan plan de riposte xam nga bu demee ba wax ne li amul fi dañ ko waroon saytu ne lan lañ am lan lañ amul lan mooy sunu kii léegi bu demee ba waxaat day ne ah plan bi kat waxal la ko lii manqué na fi lii manqué na fi Sénégal oriental Casamance lii manqué na fi nga deuxièmement def muy ndi xiiroo ngaayo euh, une guerre vraiment boo xam ne bon xamul lan la mais toog di observer il y un problème de communication ci gars yi nekk di communiquer sa bopp ci di wax fii ci di wax fii alors que communication dañu war a toog waxtaan waxtaanee mbir ba d'accord ci daal di jóg mais ah léegi am nañ ku ñuy waxal mu am porte parole soit plus souvent soit mu délégué koo xam ne moom mooy porte parole bi di wax benn wax. waaye noo xam ne yéen ci kuréel bi ngeen bokk war koo waxtaan war koo kii et puis ku nekk fantasiro kii di wax see kii di wax see ah muy indi xuloo seen biir loolu aussi euh, euh, naqarlu naa ko donc y a pas assez suffisamment de communication waaw le reste maintenant c'est que et effort yooyu ñu def ko ah yi wax mesure barrière tax policiers yeeg gendarme yi ñu war a génn pour pérenniser yooyu imposer leen ñu seulement ñu ñu remonter distanciation sociale ah loolu mooy ko dem boo ma gis président di dem booru Kaffrine booru Kédougou mbooloo mi ne tës ah ko respecté une barrière ah dina naqade yu bëri de mm-hmm. loolu la te troisième vague ah mu ngi fi de mu ngi ñëw waaw yaakaar nga ne système sanitaire bu Sénégal dana ko attan attanu ko ndax ci première vague bi amoon nañu jafe-jafe ay lal euh, dégg nañ tamit professeur Seydi li mu fi waxaat euh, barki démb ni euh, dañuy am problème oxygène ak yu ni mel ca hôpital Fann Dalal Jàmm yooyu yëpp di ay jafe-jafe Sénégal waru woon weesu fii docteur ginnaaw bi ñu duggee surtout ci mbas mi ah, ah, waroon nañu weesu fii waaye nag loo xam ah, dañoo taxu à un moment donné suñu doole dafa jeex ñu problème bi mooy moyen amatuñu moyen amatuñu dara. Hmm. voilà donc euh, euh, léegi daal ah yal nañu yàlla suturaal rek waaw troisième vague bi moom ñu ñëw naam nga affaire vaccin bi yaakaar naa ne efficace na am na tuuti efficacité. Hmm. waaye nag doyul voilà. est-ce que amuñu amuñu tam problème tamit ndax ndax tamit euh, sànq maa ngi lay laaj Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci Macky Sall jafe-jafe bi est-ce que du ay. politiciens peut-être yu ñuy teg ci boppu ministère yi yaakaaroon ne loolu am na njeexital ci système bi ni muy doxee. waaw politicien bi waaw ku leen tege ci système bi de duñ la jox résultat boo yaakaar. Hmm. Euh, naam ñu ngi wax ne ñu ngi wax fekkewuma mais euh, am na ñu bari ñu ne woon l'un des meilleurs ministres de la santé si Mamadou Diop le le politicien à part moom politicien daal. santé dafa dafa laaj nga technocrate. Hmm. waaw lépp du lambda lépp politique la mais nag boo xam ne dafay rendre efficacité ak efficience. Hmm. voilà man de loolu laa ko liggéey et bu ñu fàll ci bopp ci fa ñu évaluer fa ñu tàpp ñu ne su nga laggee su nga baaxee su nga baaxee. yu litre yi boo am responsabilité pour ne toogal wala dégal. c'est tout mhm. c'est tout mënuñu ah. wax wàllu wér-gu-yaram te waxuñu ci euh, médicament yi nga xam ni tamit euh, garab yu bon yi euh, fo médicament yi nga xam ni douane mi ngi ciy teg loxo loolu it di luy gàllankoor lool wàllu wér-gu-yaram ban jeexital docteur Thiam la faux médicament yi mës am ci système sanitaire bu Sénégal tey rawatina ah, nga ñoo xam ne si parce que seen médicament loolu mooy loraange ci askan loolu moom yàgg nañ ko xeex ah les médicaments yi ñuy jaay ci mbedd bi baaxul ça c'est sûr pharmacien aussi war nañ xoolaat seen politique de de dispensation des médicaments parce que yenn saa yi ah, euh, système anglophone li nga soxla ci garab su dee ci comprimé la wala nga am ci la ko ñu yeeshi pharmacien yi dañuy jaay paquet bi ñuy dégluwaat ah malade yi amuñu njëg boobu amuñu njëg boobu c'est ça c'est pas parce que bëgg ñuy jënd garab yu baax mais amuñu xaalis amuñu moyen. est-ce que secteur bi tam nañ ko mu waree. Ah non non non problème moom ça euh, boobu xam nañ fu mu jógee xam nañ ñu ngi ah. même il y a des pharmaciens complices. Euh, système de régulation bi amul euh, sooxe na war nañu am euh, plus strict war nañu nekk plus strict hmm. douane yi gendarme yi police ministère de la santé ministère de la justice ñëpp lëkkaloo xeex mbir mi fléau la na fi jógee parce que askan bi wér gu yaramu askan bi mm. lan ngay suggérer wala lan nga jàpp ni tey moo war a doon taxawaayu patient yow yi ngay sàmm seen àq ak seen yelleef ngir système sanitaire bi mën a jaar yoon am na ci xëy na gàllankoor yu bari yu ci nekk euh, nit kiy faju am na taxawaay wum ci waroon a am ngir xëy na loola loola bañ a nekk. à chaque waxtaan di wax di joxe suñu xalaat di artu voilà. di mun a jooy fi ñu ko mun a jooyee surtout hmm. voilà su fekkee ministère de la santé mooy njiital santé ñu dem à chaque fois koy wax suñu xalaat di weccoog moom. est-ce que waxtaan boobu yéen a ngi koy am. ah. est-ce waxtaan boobu ngi am. waxtaan boobu man de benn yoon lañ ma invité waxtaan ci conservation sur les urgences jeex na waxtaan bi euh, yaakaaruma ñu doxal waaw hmm. ñu mhm. président Macky Sall mi ngi woote équité territoriale sànq yaa ngi koy tudd. yan yoon la war a jaar ci sa xalaat ngir loola mën a mën a sotti ci wàllu wér-gu-yaram. dégg nañuy jamono yële muy dànqaafu médecin nga xam ne dañuy bañ a dem ci gox-goxaat yi nekk ci biir réew mi lan mooy solution ci boobu jafe-jafe xëy na ngir mu yegg moom ci équité territoriale bi mu euh, mébét ci wàllu wér-gu-yaram mu ñu topp carte sanitaire bi. Mm. du xam nga hôpital dafa am euh, fu mu yelloo ak fu mu dul yelloo. ah bon. temps Ablaye Wade gars yi dañoo bàyyi Kédougou madame Viviane Wade dafa bàyyi Kédougou dem tabax benn hôpital ne ne fa Cheikh. Mm. ne ne xaw ma lan. waaw Ficha. waaw euh, voilà. man def naa ay tournée ba dem di ne euh, hôpital ne ne fa Cheikh. waaye gynécologue bi laa gis mu toog rek mala cumbal malade amul lal amul te nga xam ne moom rek moo doon nekkoon gynécologue région ba hmm. ñu affecté ko mu daal di dem militaire la woon yóbbu ko nee na fa ca malade yi nga xam ne euh, dañoo changé woon ñoo accouché ci kii bi dañoo mujj population bi dañoo mujj yéegaat ci montagne yi donc da ngay toog foofu journée lëm doo gis malade loolu nag moo tax euh, ñu ne wala ñoo woon tabax hôpital ñu ne fa yi daf koy hôpital Kédougou suqali ko léegi ne fasien am na mais nawet bu jotee doo fa mën a dem yoon bi dafa daggoon nga piste de production war nañu xoolaat defaraat yoon boobu hmm. ba Saraya ba Salémata yooyu yëpp war nañu ko defaraat naam loolu la ñuy def accessibilité géographique pour que malade bu tiré dans un rayon de moins de cinquante kilomètre nga mun a nga mun dem ci yoon bu baax nga am ambulance yi la mën a yóbbu pour que nga mun a faju loolu problème la boo xam ne tout le ay at génération bi ñu dana posé wu il faut que ñu ay jéego rek soulagement yee réglé voilà. Hmm. spécialisation itam Sénégal am na ci jafe-jafe bu rëy ndax euh, lu mel ni anesthésiste réanimateur euh, tàggatu ba ak yu ci aju xëy na yenn saa yi dafay diis lool ci ndaw ñi te euh, du ñàkk ñi ñu ci bari seeni njaboot du ñu am doole jàppale leen loolu it lu gàllankoor système sanitaire bu Sénégal la lu ci bari ay doomi bitim réew la ñuy gis te bu nu mokkalee ñaaree dañuy dellu seeni réew. ah waaw loolu léegi moom sax xew Sénégal nag mais kon ñu jàppale changé politique daa daa déggoon naa ne ñu ngi leen di jox ay bourses yoo xam ne trois cent mille francs pour que ñu mën de def seen spécialisation mais bu ñu defee seen spécialisation aussi dañu nangu ñu affecté leen mais di def spécialisation o pare toog ko daal dañu dem ci àll ba. Hmm. jërëjëf docteur Oumar Boun Khatab Thiam ñu ngi lay gërëm amoon mbégte waxtaan ak yow ci démb ak tey ci wàllu wérgu yaram euh, bëggoon a dellu si ci nu mu gën a yaatoo ci assise yi ñu fi amaloon ci atum deux 2000 assise nationale de la santé lanu ci euh, nasoon ak tey fu nu toll ci doxal gi waaye itam président Macky Sall ana fu mu toll ci système sanitaire beeg li mu ci diggee woon yépp yow yaa jiite alliance nationale pour la sécurité des patients ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak auditeurs yi maa ngi gërëm ñëpp di sant euh, c'était une contribution boo xam ne en tant que président de l'alliance pour la sécurité de l'alliance pour euh, l'alliance l'APR hmm? ensuite euh, membre de la vision Macky 535 ah di wax ne rek àla kulxaal li ñuy wax li c'est pour mun a gën a sunu kii am président am na volonté mais il faut que ñu gën ko jàppale ñu gën ko jàppale fii mooy il faut que daal euh, euh, suñu nangu di déglu ay ay yenn wax yenn waxtaan yi pour que système bi jëm kanam euh, jërëjëfati madame jërëjëf jërëjëf docteur Oumar bun xataab caam moom la ñu doon dalal ci démb ak tey gërëm leen ci déglu bi gërëm Diawo Diallo mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam ngoom la woon ci kàddu gi ñuy jéggalu nag euh, yenn saa ci qualité sonor bi ndax euh, gan gi dafa nekkul ci ndakaaru jërë ngeen jëf kon ñëw digg leen daje dimanche incha allah waxtaan ak keneen ci leneen ñu yendoog jàmm.